الرب دينجر تونتون أحد تكن من أئمة الإسلام جيت الإسلام لولو صار بدار برم قم قمي يرون جبه سين قم قم عمر كن نكو تتحو دي تونتو كيلي فيغا خمني خمينين لين لغي الإسلام لولو داوين كدف بل لفنك ينتخبون لني تان لهم يلين الأجيبة تونتي الحسنة يرفدي jox doom kem seen kattan mm-hmm. dañ daan fekk waxi boroom xam-xam bu mag mm-hmm. mu solol ko bu mu rafet mm-hmm. xoddu ko la yelloog wax ci wax ji xam nga wax waxu borom xam-xam su jëmtaloo ay anami anam da ngay tànn anam gu rafet gi waaye bul tànn anam gu ñaaw ko ñiy jëm borom xam-xam yi nag ci ëpp nañ leen a jëmee mooy wax ji dafay jëmtalu ay anam mën naa yor ay maanaa ñoom ñu jël maanaa bi nekk ci ñoom mbon gi nekk ci ñoom maanaa googu la ñuy jël jégleel ko wax ji te wax ji firiwul loolu mm-hmm. soo leen waxee maanaa bu rafet ba ñu ne déedéet tànn nañ ñoom seen jikko mm-hmm. parce que nee ko xam-xam yi tey ni rek ganaar guy xool boom si seetu ci mm-hmm. cop seet ko ba gémmiñ gee nàcc mm. nga yaakaar ne keneen lay mm. ñoom buñ gisee waxi borom xam-xam yi seen bopp lañu xool te seen bopp lu rafet nekku fa mm-hmm. ñu gis maanaam bu ñaaw ndax seen biir lépp a ñaaw mm-hmm. ñuy xeex maanaam boobu yaakaar ne borom xam-xam yi lañuy xeex fekk ñoom seen bopp lañu nekk di xeex ak sen jikko lañu nek di wax waye waxuñ jikko borom xum xam bi sen deg deg lañu nek di wax ni waaye waxun deg deg borom xum xam bi mag ñi da wuñ def loolu ñoom dañ nan tànnal borom xum xam bi tontu yu rafet sen seen kéemtalaay kattan كما صنعكم دفع الشيخ جلال الدين المحلي في شاهي شرحه بمن من حاج الإمام النووي بمن من حاج الإمام النووي رحمه الله تعالى كثيرا جاكنتي لك واي جاكنتي بونيو هذا في من عندنا كان يعاني طولك فيجان دنا ده في كلام المؤلف وقت تعرف كربلاء أحسن الأحوال تي حال يجنا رفق من غير إظهار كرر مفاجع للتوريد الاعتراضي شرط الكريتيك عليه تموم ولا تنقب لجاجن الطفل دره جوهم أنا بقول إني مي وخير doo ci gis mukk ne dafa ñëw pour critique ko wala boobu mu bëgg teg dara ci waxam dafay rafetal wax yi imam Nawawi waaye ne teg na ci dara mais doo ko seetlu xataa inna xaaliba talabati xam mi ba ñu ëpp ci ñi sànq sàkku xam-xam laa yashoroon duñ yëg sax bil jawaab bi ci tontu gi mu tontu xam ne Nawawi ci Nawawi pourtant na ku mais ni mu koy defee yow doo ne sax teg na dara ci wax ji pour rafetal wax ji faral yàlla na yàlla gërëm na adab bi ci ñooñ teggin wala insaaf ak ñooñ màndu ilaan qaala bu ma wax kaana nekkoon alxasan basri rahimahu yàlla na yërëm ko la taala kawana yaqul di wax ne isa balaxaxa bu la jotee an sax sin ci jëmm andoo ne moom axtaa juum na fii masalatin ci masala faj tamee na nga dajeeg bii ci jëmm jooju wa aarit nga gaaral ala ci moom zaalikal xataa boobu la njumte Hasanul Basri ne boo yégee ne diw dafa juum demal ci moom nga wax ne ko ah, lii de lañuy wax ne yaa ko wax fa in ankaroo bu ko weddee ne waxuma ko fa saddiqu dëggal ko ayoo loolu nga ci bëggoon mu génn ci génn na ca fala yus du dagan lakk ñee la nisbata zaalika askan ne loolu ilay jëm si moom baada zaalik gannaaw loolu ndax nit daan na wax dara ba pare génn ca waaye suñu jamono ji moom den naa mukk yaa ko wax de duñ nangu nga génn ci mm-hmm. xam nga loolu mooy bëgg a sikkal nit ki mm-hmm. <laughs> moom juub nga wax ko moom wedd na ko loolu mooy génn na ca dëggal ko rek du si nekk di critique lu tax nga weddi ko yaa fi génn na ci génn ci mm-hmm. bug ko ah. doon jamono ji foo ñu askane waxoon nangam nangam bu jigéen ñi génn na ci way lam tëj tamit boo dajewut bii ak waaj faxmil na nga xen kalaam moo xam ala mahmalan ci juróom-ñaar fukki anam gis nga bu fekkee nag yow waa ji mënoo wax nañ ne dafa juum njumte loolu jëmtol na juróom-ñaar fukki maana yoo xam ne yëpp bu si nekk wér na benn rek mooy ci njuum bul jël njumte mm-hmm. maanaam jéem koo taawil nga dafa façon yu bëri yuñ ko mën taawi lii boo ko defee ci wax mag ñi rek doo leen jumbu <clears throat> fay lam taqtani bu doylu wut nafsaka sa bakkan bi bi nafsuka sa bakkan bi zalika ci bu dee sa bakkan bi gërëmut taawil yooyu farjan dellul ilayha sa bakkan bi bi law mi ci yedd yow yeddal sa bopp waqul waxal lahaa ñeel bakkan bi ne ko yaxtamilu dana jëmtalu kalaamu axiika sa waxu bi sabina mahmalan juróom-ñaar fukki anam am juróom-ñaar fukki xenwaay wala taxmili te mën nangoo koo xen ala waahidin ci benn ménage yooyu waxal sa bakk mi yaa soxor yaa bon sa mbokk mi waxam ji am na juróom-ñaar fukki anam yuñ ko mën a xen pour dëggal ko yow na nangoo ko ci xen benn nga yedd sa bakkan nga lii ñoom waxuñ la sax si diggante sa digganteeg sëriñ waaye si digganteeg mbokk taalibe nii nga ci war def su ko ñoom eh, nii lañ amee teggin nii lañ doon moytuloo inkaar xaala woon acharaani yi faalam xamal andoo ne li am ba am laa yajuse du dagan lanaa ñeel ñu alxattu ñu wàccee ala waahidin ci kenn min aqraarina suñ maas yi waxu sax sëriñ si sa morom bi mu jaradi kalaami nafsi ci raf lay waxe boxamaanu ci moom bul dégg ne diw wax na dara rek nga jël sa vidéo sa audio wàccee ko mm-hmm. ba léegi dafa nekk na tarabbasu nañ muñandiku wala te sabbatu ñu wóorlu wala tamewu ñu dajee biim ci ñoom wala raasirum ñu wax ak ñoom maanaam gëstul ba xam wax ji dëgg la diwa ko wax wala waxut ko lu tax mu wax ko lim ci nam nga wax ak moom ba xam ne wala nanzuru ñu xool jawaab am rim tontu seen mbir boo waxee pare lan lay tontu fa bi maa benn ay yantari fa mu nangu ne moo ko wax way ma benn ak yun këram mu wedd ni waxu bu weddee moom nga bàyyi bu nangoo wax la lam ci jublu muy njub nga bàyyi noonu moom fa yaxtarafa nam na bi daalika ci wax jooju araf naa ñu xam wajal sawaab bi anam ak njub allazi gi xam ne araadu la baax na fay na dee ci lam wax alama borom xam-xam yi xul naa ñuy wax bii ci moom bu dee maa wax wax ji lii ak lii moo tax mu wax ko te loolu mu wax borom xam-xam yi nangu nañ ko bu ko weddi ñi am borom xam-xam yi nangoo ko rek bu ko weddi xam nga toog ne ma li mu wax rek wér li keneen wax wérul loolu kuréel rek koy def buñ ko daakoorul waan kuroo ko jumla sa mboolem seen mm-hmm. naa ñu xool fi am rii ci mbiram bu fekkee li nga wax ni borom xam-xam yëpp ko dàq ñu xool seen mm-hmm. rajaanam dellu na gannaaw nu ci wax ja tara day naa ñuy gërëm liru ñooyu ci dellu gannaaw mm-hmm. wayn sama ma nem nuur na alal ci njumte foofu naa lekk nag jamono boobu maanaam bu juumee dëgër ca bopp foofu naa lekk jamono boobu ye jus dana dëggal la ràññeel ñu ishaata zalikal kalaam yi siiwal boobu la waxaan wu jugee ci moom shafaqatan ngir yëram min naa si ñun ali ci waa ji waala man yet boo ak kuy topp wax jooju maanaam daal nit ki balaa ngoy tasaare waxam leeral ko yooyu fekk mu dëgër bopp lool wóor na ne moom jum na nangu ne jum na li mu wax kenn waxu ko jumte la mu dëgër bopp delluwul ca gannaaw ah su boobaa da ko leeral ngir yërëm ko moom ak yërëm ña ko topp ña nar topp wax jooju ña si nar a sànku mm-hmm. loolu rek nga di ko leeral mm-hmm. te loolu fekk mu sës mm-hmm. dafay nga sës xam ne amul benn pexe boo mën def ba waa ji génn ci réer gi te wax ji réer gu leer nañu la saraxa loolu nag <coughs> dégg nga boo ko doon ci mag ñi doo gis ñoom naa leen wax loo xam ni kenn waxu ko sax néew na mu am. Mhm. laa boodoon waaye nekkul bañ la waxuñal ko tachafiyan ak saafara sa bakkan laa wajin adawati nafsiya ci anam ak noonu ak bakkan maanaam doo tasaare waxu nit ak njumteem mhm. ngir bañ ko ak bëgg faj sa mer hmm? mhm. loolu doo def kon daf ne boo déggee njumte dellul ci borom njumte ko su delloo gannaaw baax na waaye nag moom bu delloo gannaaw bu fekkee njumti lu tasaaroo dafa war a génnaat leeralaat lii ak lii laa jublu ci wax ci mm-hmm. pour fu njumtee ga xegg dellu gannaaw ga xegg <coughs> fa su mm-hmm. nangoo loolu amul problème mm-hmm. su fekkee nag nanguwul loolu te xam ne dafa juum ah wax njumte gi tasaaroo ñu sàkk ci moom mu jéem koo leeral bu bañee nga leeral ko ngir yërëm ñu réer gi xegg ci ñoom waaye du ko bañ ko waaw su nee na moom wax ji moo ko wax leeral na la fi ñu ko teg mm-hmm. mu dëppoo waxee ay borom xam-xam mm-hmm. di la wute naag yow mm-hmm. bokk mu dem parce que yow moom mu diine ji te li mu wax am na ay wéduwaay jëree <laughs> yow daa kuru ca dul wax joo ko mën a critiquer wala nga euh, jëmee ko kon ndax waxi borom xam-xam yi la wax nag benn nee na waaw ko mu ne ko dellu gannaaw mu dellu gannaaw leeralaat ko baax na bu bañee ne nag du dellu gannaaw wala boog dellu na gannaaw waaye du ko leeral mooy mooy sax na su njumte mm-hmm. yow man nga koo leeral ngir yërëm ñu na a sànkoo ci wax jooju waaye nekkul na ngir bañ ko mm-hmm. kon wax boo demee ba nga xam ne nar naa yàq mm-hmm. te borom naru ci def benn pexe te wóor na lii njumte gu leer naññ la yooyu la ñuy leeral wa hada amru mbir mi ne xal la man yafaloo néew na koy def alaan léegi min naas ci nit ñi léegi noonu dañ léegi tëll rek ci waaji rek gaaw dem jubanti fenn xaalib al aqraan naka ñi gën ñi ëpp ci maas yi xanaa moom matal na leen alxasadu añaan wa kasatu daxaa ini ak bëri soxar laa yaakaar doona duñ xaw abadan bu faw ete sabatuuna di sax maanaam di wóorlu fi kalaamin ci wax joo xam ne samiu dégg nañ ko an ahadin ci kenn min aqraanim seen maas wa ahli seen ñoon jamono mm-hmm. mu ñu ëpp ci maas yi ñi nga xam ne ñoo xawoon naw wante ci xam-xam ñu bëri ci ñoom dañu añaanante soxaraante mm-hmm. buñ déggee erreur ci seen morom duñu wóor lu fu ko waaji teg ak fu mu ko teg lu tax mu wax léeg nangam nangam duñ ko wóorlu dañuy gërgër rek dem jubantu ñu ci bëri boo xooloo yi duñ la tontu wala boog maanaam duñ duñ nangoo wax ndax jàpp na ñoom buñ xasee waxit kenn du ci wax dara mm-hmm. <laughs> yooyu yëpp ka ñaanu koy waral rek su defee ñaar yëpp moom benn baaxut ci dara rek nit matt ga damm na xaaral ma damm dammati tànk waa ji parce que wax na nangam xaaral ma gaaw balaa ñuy leer moo ko waxam waxu ko lii des ci ma lënd man laa mm-hmm. bari ñu sikk ko loolu baaxut wala boog nga juum wala nga wax dara am kum jaaxal mu wax ceeg yow ci sa xaas nga mer hmm. kooku baaxut ku réere mooy def la duñu wóorlu yeta sa batoona di wóorlu maanaam duñ xaw yeta sa batoona di wóorlu fii kalaamin hmm. ci wax sami dégg nañ ko ne ci kenn min aqraanim seen maas waali asin ak seen ñoom jamono hmm. wa zaalika loolu xawfan ngir ragal minu ci moom ani ta bayana mu leer zaalikal kalaam boobu la wax kasiban di narxaanu jóge jógee ci moom ndax man ngaa wóorlu ndekk lii waxu ko wala boobu du niñ la ko waxé non la ko waxé fala yahsul du am lahum ñeel leen xaradum seen jubluwaay way min aza ci lor li daalika sax ñeel boobu la jëm li tax ñom ñu bëgg wax ci wax ji moy lor waaja wata luñ dégg ne moko wax ci lu ñaw rek dañ koy gaw tu saare duñ gëstu ndax buñ ko gëstoo man na fekk saxut ci mom wala denol na ci gannaaw wala yeneen contexte mo taxul mu wax ko yu bokut ak niñ ko fogee dégg nga am na daal génn waay génn waay googu la bañ nag moo tax dañuy gaaw rek tasaare ko <laughs> ngir lor waaj faadaali sababu tarki tasabuti moo waral bàyyi giñ bàyyi ñàkk xóorlu waxat saara mujj na ak sarmaes moom li ëpp ci nga xam dana ko déggal insaan dumaadama bi xasa zamani ci biir jamono alkasi ba nar mhm. li ëpp ci li ñuy li ci jamono ji mooy ay nar mhm. nar da ngay dégg ci nit lu ñaaw rek dem wax ko diw def na nangam def nangam wax na nangam wante yëpp dara du ci dëgg hmm? <coughs> loolu ñi nga xam ne ay eh, kii lañ dañ koy def waaw maanaam léegi dañuy dem ba wujjee ci xam-xam xam yàlla kenn moomu ko yàlla ci rawa ku ci nangam mbiram yàlla nag léegi diw diw yàlla may na ko xam-xam rek yow yàlla may na la xam-xam nga ne yaa ko fare kaw wax nañ ne diw wax na nangam wóor naa wóorut tasaare wax na nangam def na nangam def na te dara leerul la mm-hmm. mosoo ko cee laaj boo déggee ci nit lu la jaaxal da dem wax ci ak moom mm-hmm. dégg rek gaaw génne ko mm-hmm. kooku baaxut te gars yi dañ koy def bari sax léegi-léegi sax nga gis ku xoo wax ko ci nit lu safar pour bëgg mu wax ko yooyu yëpp baaxul mu mm-hmm. kon li ci ñuy déglu ay nar la min xilatal wara yi ngir néew ak sàmm mm-hmm. anil xaw di ci xuus fi enradi naa si deru nit ñi parce que nit ñi ragalatuñ yàlla bañatuñoo xuus ci deru mm-hmm. ci deru nit ñi waleen fekk daal wax ci deru nit ñi moo moo leen gën maanaam léegi da ngay dem ba gis débat yoo xam ni dañuy génn ci débat ba carrément di wax nit ki lam defoon ak lam waxoon ak lam na di ne dina sax nit day denc sax ay audio nit <coughs> ngir bu meree teg audio ba mm-hmm. xam nga amul nit ñi benn njëriñ mm-hmm. moo tax <coughs> mu ne loolu lépp ay mbir la yoo xam ni daal mm-hmm. yu suufi la léegi nag yu mel nii moo yóbbee nit ba ba muy critique wala yàlla yi boo commencé sa morom fakkastalu mm-hmm. da nga commencé ci say ustaas fakkastalu fa mm-hmm. boo demee bés kam nga fakkastalu ci ñi gën a mag boo demee bés kam fakkastalu ci wëlli yàlla yi mun nga demee ba fakkastalu ci yonent bi boo demee sax mën ngaa dem ba ne a ah, attention kat laaya ji mm-hmm. fakkastalu ci ku ndaw ki moo yóbbee fakkastalu ci ku mag léegi nag moom lim la jox nii waxul la sax yi mu la wax moom waxul la sax sëriñ bu mag waaye def na la indila la indi li borom xam-xam yi wax ci ni nga war a jëflanteeg sa nawle ni nga war a jëflanteeg sa mbokku jullit ni nga war a jëflanteeg borom xam-xam bu mu mën a doon mooy di teey ci ay mbiram di laajte lu jublu ci waxam balaa ngay wax ci waxam looy critique wala looy leeral na fekk mu leer nañ ne li njumtere goo xam ni teguwul fenn fenn fenn fenn fenn amul benn borom xam-xam bu saxal mm-hmm. te moom it parewul pour dellu ci gannaaw mm-hmm. su boobaa wax ji sax dégg nga da ko wax ngir bañ réer tasaaroo waa jubloo ci mukk ngaññi eh, ko wala suufeel ko mm-hmm. wala boo mm, seddal sa xol ci luy tàngal xolu jullit seddal sa xol ci luy tàngal ci xolu jullit amul benn njëriñ bu defee lii lépp rek ngir bañ rek nga yegg ci mag ña bu fekkee ndaw ñi sax nii ngay jëflante ñoom sa morom yi sax nii ngay jëflante ñoom doo ci mag ñi moo ko di leen sànni xisa bu mu nar a andiwaat yaakaar naa ne moom dañ koy bàyyi ba beneen darsu ñu def ko darsu bu xam ne xaw naa gudd إن أريد الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته